di wax ne tey dañoo woote daje jeunesse su réew mi di def motion de soutien à l'endroit de son président le président Idrissa Seck bi nga xamee ne jël na décision jàppale président Macky Sall pour ñu tabax réew mi ndax ñëpp xam nañ ni dañoo jóge ci feebar bi ñuy wax coronavirus mu nërmeel koom-koomu àdduna bi yëpp nërmeel dëkk yi ak gën a am doole ku ci mel ni États-Unis France Italie Espagne ñi nga xam ne sax jàpp nañ ni ñoo gën a ëpp doole ci àdduna bi dem nañ ba ba mënatuñ ci dara réew mel ni sunu réew muy Sénégal ñu génn ci ak ay jafe-jafe croissance bi jóge ci 6,7 pour cent ñëw ci 0,7 pour cent. bi président Macky Sall tàllale loxoom ñun ñu jàpp ne nit boo gëmee sa dëkk gëm sa réew sa réew nekk dëkk bu nërmeelu bu la président de la république woowee da nga koy wuyu ji ngeen ànd tabax réew mi am na nag ñu ko ŋàññ am ñu mu neexul mais dañuy wax ne ñi nga xam ne ay manipulateur lañu ñi nga xam ne ay calculateur lañu président Idriss sec lépp lu mu def am na soutien total et intégral de la jeunesse de son parti muy réew mi ba pare dañ koy jàppale ci décision boobu parce que mooy décision bi mat a jël beneen bi nga xam ne moo ci tegu mooy ñi nga xam ne dañu bëgg a dicter agenda ñu nekk ci une certaine opposition nañu gëm yàlla déglu ki ñuy wax Edgar Morin nga xam ne dafa théoriser li ñuy wax le conflit des idées en matière de démocratie ndax démocratie jàpp nañ ni du séparation des pouvoirs kese mais démocratie mooy nangul nit ki gisinam ci li nga xam ne moom la jàppee ne loolu bu ko defee réewam mën na cee génn réewam mën naa génn ci ay jafe-jafe sa Seck opposant la woon dafa nekkoon ci réew mi am gis-gis am programme am vision ànd ko ak ay nit bu demee ba jàpp ne loolu mu gis dafa war a taxaw participer de manière directe et personnelle comme ni mu ko waxee ci liy yëkkati réew mi yaakaar naa ne décision gën a gën a rëy boobu donc ñi nga xam ne dañuy joxe leçon mën nañu ko téye soxlawuñ seen leçon parce que politique de la pensée unique dafa war a jeex ci àdduna bi terrorisme intellectuel dafa war a jeex ci àdduna bi fi ñu toll actuellement mooy dëkk boo xam ne liberté sañ-sañ droit ak devoir moo war a caricaturer moo war a caractériser les hommes politiques donc bu ñu kenn wax fu ñuy jaar bu ñu kenn wax li ñuy def bu ñu kenn wax fan la ñu war a jëm président Idrissa yaakaar naa ne depuis fukki at ak juróom ñu ngi ànd ak moom musuñu ñu wax lu deñ musuñu ñëw dugal ci loo xam ne guuta la kon tey la suñu ànd ak moom gën a firndewu tey la jeunesse su parti bi gën a nekk ci ginnaawam tey la ñu war a ànd ak moom gunge ko ci li mu jëm te ma koy rassuré ne ko ne na xelam dal ndax ndaw yi nekk ci ginnaawam ay ndaw yu pare lañu dinañ nekk gardam nekk avant gardem nekk bouclier ci action politique bi nga xam ne moom lay mettre en place en collaboration avec le président Macky li ci des. mooy jot nañ xibaar ci ay yenn kuréel yoo xam ne sampoon nañ ko mu nekk ay structure politique lu ci mel ni front de résistance nationale génn nañ ab communiqué ne dañoo dàq président Idrissa Seck ma leen di wax ne leen kuréel googu amul sañ-sañu dàq kenn parce que c'est pas une entité électorale c'était une coalition politique de circonstance pour mener des combats faj ay jafe-jafe ba ñu paree ci élection yi normalement front de résistance nationale amatul woon sa raison donc man damay jaaxle bu ñu waree génne communiqué di attaquer ay nit simplement pour se faire sentir wala di wane ne ñoo ngi fi donc front de résistance boobu amuñu de leçon à recevoir ci ñoom parce que ñëpp ñi fa nekk tey jii li leen naqari ñu wax ko te dee mooy li ñu li seen chance commencé jeex ci élection présidentielle ñëpp ñi ngeen di gis ñu ñàkk ànd ak seen sago ci li président Idrissa Seck def mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni mënatu ñoo nekk président de la république tant que mu ngi fi ñu wax na nag nguur yàlla moo koy joxe yàlla moo koy xañee président Idrissa Seck ku comprendre loolu la loolu moo tax caricature bi ko nit ñi di defal ci ambition présidentielle am nit ñi ñu ngi juum ku ko pratiquer dina xam ne c'est quelqu'un qui est animé par la simple volonté d'aimer son peuple par la simple ambition de servir son pays te ci loolu la mës a nekk tey loolu la nekk dëmb te ci loolu lay nekk suba bu loolu weesoo ñuy wax ne ndawu Sénégal nañu takku xam ne réew mii ñun ñoo ko war a defar ku xool saal bii ay ndaw rek a fi nekk 70 pour cent ci askanu Sénégal ñëpp ay ndaw lañu fan yi li xew ci géej gi metti na trop ay junni junni junni nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakken parce que dañoo bëgg a dem uti teraanga bitim réew ñu jàpp ne askanu Sénégal ndawu Sénégal mën nañoo toog ci biir Sénégal tekkee si biir Sénégal loolu moo tax fan yii di ñëw dinañ def tournée nationale de sensibilisation pour wax ndawu Sénégal ne mën nañoo liggéey ci dëkk bi tekk ci dëkk bi ba pare bëgg dëkk bi donc loolu mu nekk message boo xam ne bëggoon naa ko lancer à l'endroit des jeunes di pare nag di féliciter encore une fois le président Idrissa Seck ci choix bi mu jël jël conseil économique social et environnemental parce que conseil boobu c'est une structure de l'État extrêmement important lu am solo la parce que bu nit ñi yaakaar ne ab conseil rek la nii buñ jël jox ko ko conseil boobu li muy jariñ askanu Sénégal moo ëpp li nit ñi yàqkat yi di topp télé yi rajo yi di wax conseil buy def pétition la conseil buy def ay proposition président la te bu ko président Idrissa Seck yoree di ngeen teg seen bët xam ne dina doxal dawal ak i ndawam ba réew mi soppeeku mu ànd ko ak le président Macky Sall donc ñu ngi koy ñaanal yàlla aar ko kàttanal ko dëgëral ko ñun dinañ taxaw ci wetam muy naaj di bëccëg di timis di guddi fu mu ñu woo ñu wuyu ko choix bu mu jël ànd nañ ci ak moom à mille pour cent il faut que ça soit très clair c'est une motion de soutien intégral de toute la jeunesse de son parti di ci toftal ministre yi nga xam ne nommé nañ leen te ñu bokk ci réew mi kenn ki tudd Ali Saleh Diop moo yor ministre élevage ak production animale ki ci tegu di ba Diattara nekk ministre euh, chargé de l'économie numérique ak télécommunication ñoom aussi ñu leen di ñaax di leen wax ne leen yan bi diis na mais nañu góorlu fa ñu nekk parce que xam nañ leen xam nañ seen i compétence xam nañ seen capacité mais bu leen yàlla jàppalee yaakaar nañ ni yan bi ñu leen yan mën nañ koo réussir ci jàmm ak salaam donc di terminer di wax ne président Idrissa Seck bul tiit bul ragal jeunesse bi nga amoon démb am ko bërki démb moom nga am tey te moom ngay am suba di avertir ñi nga xam ne nag ñu ngi topp seen làmmiñ topp rajo yi ak télé yi di yàq ay dar ne leen jeunesse réew mi mu ngi fi tey pour protéger son président ak lum ñu mënti jaral lu mu leen jaral pour ñu topp plateau yi di yàq télé dinañu jaral ñun tamit ñu topp plateau yi pour rétablir la vérité donc di terminer di jaale le professeur Iba Der Thiam mu nekkoon monument bu mag ci Afrique